te dem ci yenn reportage yi c'est pas évident lépp daal di tegu ci yoon wax dëgg yàlla ñoom it ñu ngi leen di defal mention spéciale sëñ Pape. waaw sëñ Jili ñi kon euh, yaakaar naa ni li nga wax amul benn commentaire bu ma ci mun teg amul dara loo xam ne lu ma si mun wax la xanaa rek di wax ci groupe bi euh, ni nga xam ne noonu la taxawee te junj nga ko léegi ci bi nga xam ne moo ci mujj a judd muy gfm.sn euh, amul kenn koo xam ne tey nekk nga ci réew mi di jëfandikoo internet te amuloo satisfaction ci seen liggéey mhm. waaye noonu itam nga koy amee ci rajo Futur Media noonu nga ko amee ci télévision bi mais mën naa wax sax noonu nga ko amee ci l'observateur mm-hmm. amu ci kenn koo xam ni des nga ginnaaw mm-hmm. ci groupe bi sax dafa meloon ni sax concurrence la ci kenn ku ci ne bëgg a def lu gën li sama morom di def te loolu nag euh, esprit d'équipe la mm-hmm. bu am solo kenn ku ci ne itam fa nga nekk euh, donte yaa ngi ci benn wàll lépp loo mën ci jàpp ci beneen wàll bi da nga koy def parce que xam nga ni euh, succès benn démembrement mooy succès groupe bi yëpp loolu tam nag taxawaay boo xam ni lu rafet la ñu leen di remercier bu baax waaye ni ñu ko waxee rek guddi Seydina Mouhamed la amul lenn lu ci ni def lu ci defal loo ci defal kenn loo ci def sa bopp nga ko defal kon dañuy sant sax ñun ci choix bi ñu def ci suñuy personne ba nga xam ne dañuy mën a ñëw bokk ci équipe bi loolu itam ñi ngi ñaan lépp lu ñu fi jële ci ñu bokkaat ñi nga xam ne itam ñëwuñu ñuy gërëm bu baax nag euh, daayira bi ni nga xam ni noonu nga ko waxee mhm. di nuyu Serigne Mansour sar nga xamni ni itam dañ ko daan gis ci ci ci wetu Serigne Moustapha Cissé gisuñu ko waye du tere ñu nuyu ko bayiko xel bu baax nuyu tonton délégué ni nga ko waxé di nuyu itam Serigne mustapha si nga xamni ni itam moom nit ku baax la suñu wëllëre la xam ni dafa xat waye bu xatul woon dinañu sanni ay cadeau mhm. ndax lu ñu sàkk woon la ci mom waye peut-être dinañu trouver occasion bob inshallah mu def ko pour la télévision Futur Média kon ñi ngi leen di gërëm mbokk yi bu baax di leen sant di leen jox dajé inshallah année prochaine bu ak gàmm yi nga xam ni. waaw jëlinu woon nañ ko. ndax ni ko doon junjee sànq. Mhm. mboolem ëttu diine yi ci biir réew mi rek. tàmbalee ko Ndakaaru nga xam ni bu dee Yoof waa kër maam Limaamu bu dee famille omarienne ca waa kër Seydou ak mhm. Thierno Mountaga ci Dakar ba ni ngay ñëwee ci xalif général bi Thierno Bachir Tall ca Louga nga jóge Louga dem ba Paal ndawal Futurs Médias dem na fa nga jóge Paal wàcc si Ngumba Nguraan dëkk yooyu yëpp ndawal Futurs Médias dem na fa Kaolack muy lew Léona Niassène kër maam Abdoulaye ak Medina Baye mhm. loolu yëpp ndawal Futurs Médias ña nga fa nga ñëw ba ci kees gi kër maam Alaaji dem cena ba waa kër maam Mouhamadou Ndaa Seck ba fii nga xam ni mooy Ndiassane ñu koy waajal muy gàmmuwaat bi ñu tuddee ko ngénteli incha allah altine groupe Futurs Médias dañ leen ko couvrir noonu itam la waaje Kaolack fekki waa Medina Baye fekki Abdoulaye Mountakha ci taxawaayam bu rafet ni nga xam ne noonu lañ ko àndee woon ak moom bërki démb rek ci conférence bi àndoon kaak moom bërki démb ci ziar bi moom it incha allah groupe Futur Média war fekki Adja Déggan Chimère ma nga fa fa la gaa moom mook sunu mag euh, Alaaji Ndiaye Loo njaay ñoom ña nga fa di ñu fa gàttandu incha allah kon euh, rendez-vous bi daal li liñ koy joxe mooy fan yi li ko tàmbalee buñ jógee ci jataay bi rek laneen loo xam ne jël nañ ko ci gàmm yi te gisaguñ ko noonu la ko groupe Futurs Médias di continuer ba ni ñu yegg incha allah ci gàmmuwaat bi eh, sëñ Pape ñu ngi santaat bu baax di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu voilà jërëjëf sëñ Jili jërëjëf mbokk yi doon ànd ak ñun ci télévision Futurs Médias eh, ñi ngi rafetlu bu baax ànd bi ngeen ànd ak télé bi muy ca ba ñu ko tàmbalee ba tey eh, daanaka dalal bi nga xam ni Tiwaawan dalal nañu ko loolu tam nekk dalal boo xam ni bu yaatu la bu ñu rafetlu la ñi ngi leen ciy gërëm bu baax di leen sant kon ñu jox leen daje incha allah dewen bu ci yalla àndee képp ko xamni ni na ko ren ñu ñaan yalla nga teewee ko dewen ak wér gu yaram ñi ngi leen di jaajeufal bu baax di leen gëreem di leen sant jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf الأقصى البشري ñaari rañaan yu nga xamni kanata ratqan ففتقناهما لولو تاكون نيتي ديمونسيون يي موي ام موم يوننتي بي ناسوت بي ني بيند جسمم موم لا يالا ديف ارض الارواح لاهوت بي مو بيند قلبم موم لا نيو ديف سماء الارواح جبروت بيغا خامني موم لا نيو بيندي روحام موم لا نيو ديف سر الارواح تي نياتي ديمونسيون يويو نك مو ام تي لاي انترفينيري تي نياتي عالم يمالين وا لي تخ ني وخ للعالمين ما راح لاني العالم الاعلى فوف الملكوت الجبروت لملان بي سيرفير فلا لين كوي سيرفير بور الملا الاعلى ديكو جار سي نيار بي كي روح القدس بي كي روح الامين روح الامين بي موي جبرائيل boo gisee rañaan gi am ñu bari dañ ko firee teraanga te d'accord teraanga la ci yonent Mais mais boobu dafa am xam nga ci même en matière d'état dañuy am ñoom ñetti niveau yu ñuy seqante waaw le confidentiel le secret ak le très secret ci ñuy échangeante mais foofu ci sunu borom la jëkke am na lu mu waroon wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril mënu ko woon interpréter parce que li jibril di for for ruuxam attanul kàddu boobu moo tax fa awxa ila abdihi ma awxa daf di ñaari dimension dimension bu shahada ak dimension bu xayb ci dimension bu shahada jibrail awxa ila abdihi ma awxa pour yëgal ko rañaan gi

جبريل دفا تاخو يننت بي رك مو يغ فولي غيب بي سوغ نيو تي آيه بي فاوحى الى عبده ما اوحى يم كو جوخ نك كي لا جيري عالمين يويو العالم الاعلى يويو ملين تدو نك بنيارل بمي عالم الاستحالة سي لي موند دي زارتيكيب زارتيكيب العناصر يب عناصر يدوكوتي طبائع يدوكوتي انساب يدوكوتي كي لاي جيري يويو يب في عالم الاستحالة بنتي جوجي نك عالم التعمير سوغنيو واو Donc c'est l'habitat. C'est l'habitat, al les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains. Yup, qui n'est qu'à ak cadre bi nga ci ngay évoluer branché wu ci que kon rahmatan lil alamin du ma nekk détail waaw fa biathatuhu rahma wa shariatuhu rahma wa afaaluhu rahma wa kalimatuhu rahma وأخلاقه رحمة وبشارته رحمة ونذارته رحمة حياته رحمة ومماته رحمة كنك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين درام دو ديتاي kuy nekk yërmande di nekk yërmande ba xëy faatu faatu ga di yërmande ak ni ni faatu triste yàlla yónni malaaka ñu laaj ko ni ko sa borom nee na bu la neexee mën nga bañ dem mën nga bañ faatu nga toog fi ba abadan mais moo honnête mu ni bu ngeen demee ni ko bu ma fi toogee ba abadan mu weddi boppam ndax kullu man alayha faan te bokk naa ci maa ngi koy wax léegi xale bi ñu ciy waxtaan bi may may café bu noir man ko sunu borom moo honnête parce que ñi ca àdduna dañ lay àtte ba noppi soog laa tëj sunu borom nag daf lay tëj ba noppi soog laa àtte ma ne ko ba ci yonent bi tëj na ko te mooy bàmmeel ku mu mën a doon rek yàlla denc na la ci bàmmeel ba noppi lu muy wax ak yow soog koo wax ak yow kenn génnu ci xoolal ma boobu fayda ah. lu muy wax dangeen soog koo wax après <laughs> waaw bu ko defee kon ñaarel ba mooy aynu rahma bokkul sax aynu rahmati rabbaniya kooku beneen dimension la ah mais ci aynu rahma rek ci cadre bi gën a suufe moo di bil muminina raufur rahim moom la ko Seydina Omar waxoon waaw ni ko yaa tedd takk jabarak lek ñamag sol mbubbëg doxi soxlaak bar ben la ci yitteelul ñun ngay bañ lu dis ci ñun ndax am na façon boo xam ni boo ko defee ñu war la caa topp ndax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana te li nga àttan àttanuñu ko moo tax ngay takk jabar pour libérer di lekk pour libérer di nelaw pour libérer ñu waaw di sol mbubb pour libérer ñu mais taloo ci benn ndax ki nga teg wa qurratu aynik waaw ki nga teg sa bët kot moo la saf mais li ci de saful

ni ma dama doon waxtaan ak góor gi ni ko doon leen ñaan Moustapha ndax wéet na nee na góor gi ni kañ ree ni ko Omar sunu boroom ñi ko yitteel mu war leen wéttali bala laa ne leen a wéttali ñi leen di déranger ba noppi ba mu des ak borom pas-pas yi kese yàlla ñëw nag boole leen ñoom ñëpp wetti waaw waaw kon nag yàlla na borom pas-pas yëpp dugg ci biir incha allah waaw waaw bi ci des mooy bi mu nekk ruuxal rahma